mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jégglu ci programme bi ni mu demee ak kàddu yi ñu fi yëkkati ci heure bii ñu ko yëkkati ndax su fekkee ne nit daf laa tudde bis waratoo am jenn yitte jumay bis ba fii ñoo fi waroon a njëkk wax fee mujj kon ñoo fi waroon a mujj jël kàddu waaye dafa am ci mbooloo mi ñi nga xam ne ñun la Sëñ Abdou yebal te ñu wax ne jaam bu tuuti bii may wax ne alfaqiru laqiru lazi laa yarda li nafsihi ila an yakuna taaliban jaam boo xam ne ku xeebu la boo xam ne gërëmut ci boppam lu may nekk ab taalibe mu jiital ko ci délégation bi teg ci Cheikh ab Xaadir Jiili Mbàkke mii ma dendeel ci sama wet ak Serigne Massamba Gueye ak Serigne Saalihu Silla mii di sëñ daara ak taalibeem Serigne Muudu Jonn ak sëriñ Malick mii Malick Jonn ñoom ñëpp ñoo ànd ci délégation bi ak soxna yi nga xamne jitu won nañ fi ndax soxna mare ma ngi fi ak soxna hadi ndax xalé yi don tari motax ñoo jitu njëkk délégation bi di ñew kon wara a ko ñen ñi and ci mbolo mi rek motax ñu yakamte yëkkati kàdd yi ak waxtu timis bi waye bis bi rëy ne rëy go xamne ko ñu ko tuddee bis bu ñuy jàng alquran ay xale yu ndaw ñu tudde la ko dara jaale la ko loolu rëy na rëy goo xam ne kenn koo xam ne leer lislaam yaa ngi koy yëg ci sa xol loolu mënta mënta ndaw kon jox na ko sëriñ bi nee na bis bi jox na ko gëdd jox na ko wàccuwaay bala ma sori ci loolu mooy sëñ Abdou mi nga xam ne moom la sëñ Abdou Salaam nii ak sëñ Mour Diouf tudde liggéey bu rëy bii ñu wax kan mooy sëñ Abdou ndax suñu waxee ne bis bi Abdou Lahad Mbàkke lañ ko tudde rekk ci Touba mu doy bisub diine la bisu bisub alxuraan tudde nañ ko ku ñu wax sëriñu Abdou laxat Mbàkke ci Touba rek loolu doyoon na waaye faaw rek ñu tudd kan mooy Sëñ Abdu Lahat ba ñi fi teew xam ne Sëñ Abdu Lahat mii dañ ko tuddee Sëñ Abdu Lahat bii ñu tuddee bis bi mooy doomi mooy ki nga xam ne Habibullahi Mbàkke moo jur maxtaar aadama mbàkke mu jur sëriñ njaga mbàkke mu jur sëriñ maxtaar ma jigéen mu jur maam cerno aysa mu jur sëriñ gaawaan mu jur sëñ Abdou kooku mooy ab Lahad mbàkke mi ñu tudde bis ci wàllu yaayam tamit maam maaram ba tey moo jur ahmadou soxna guso mu jur tafsir mbàkke ndumbe mu jur soxna ñaaw mbàkke mu jur sëriñ mbàkke ñaaw mu jur sëñ abdullahi mbàkke mu jur soxna nday mbàkke mu jur sëñ abdullah ñaari maamam yëpp maam maaram a ko jur maam maara maamaat maam maaram moom moo jur maam balla mu jur maam abibullahi mu jur maam mor anta sali mu jur sëñ tubaa kon ñaari maamam yëpp maam maaram la moo tax ñu naan mbàcce balla ak maaram loolu moo tax kon mooy sëñ laat kon suñ ko tuddee bis bu toll nii jaadu na te yell na ñu tudde ko ko rawatina nag doyut ci aw sant rek daa jaar fi doomi jaara yépp di jaar jàng alxuraan ba mokkal ko sëñ Saalihu mii ñu tuddee école bi moom bindal na ko ab kaamil ñi njëkk a mokkal alxuraan ci génération ci la bindal na sëñ Saliou ab kaamil ba ko bindalee kaamil boobu sëñ Saliou daf ko wax ne ko nii nga def rek la sa maam yi daan def nii nga def rek la sa maam yi daan def loolu di tekki ne li sëñ bi waxoon ne askanu Mbàkke fonk kilifa ak teel a mokkal alxuraan dama ko fee fekk loola lépp feeñ la sëñ laat nit ku teel a mokkal alxuraan la nit ku teel fonk kilifa la loolu nag la ko yàlla faye ci mbooleem ñi mu am lanteel ñëpp ñu déggal ko ba lu mu leen sant ñu def ko bis bu rëy la bis bu toll nii ci ko ko xam ñu tudde la ko mënta woyof su fekkoon ne bis bi Abdou Salaam mii da ko jël ak sëñ Mourou Diouf tudde ko politique see da xam ne kon ñii ña ngi jàngale luñ dégg waaye tudde giñ ko tudde Sëñ Abdu day wane ne kon ñoom li ñuy jàngale ñoo ngi koy def ndax boo jëlee bisu xam-xam tudde ko borom xam-xam jël bisu diine tudde ko kilifa diine day tekk ne loolu ngay woote kat loolu ma ci yow su fekkoon ne kon kay da ngaa jëloon bis bi tudde ko koo xam ne politicien la wala keneen la kon kat day nuru ne li ibn al arabi di wax ne at tijaratu bil adyaan tijaaratun rabiha commerce mi gëna gaaw mi ëpp doole ci mu nit ñi di commercer légui moy diine waye seigne blad ni ngeen tudde bis bi lolu tek na ne bis bi commerce wo leen ci wuto leen ci dara yàlla ngeen ci wut te seigne blad neena na yàlla moom ngeen di wut ci bis bi yàlla na ngeen ko ci daj neena na ma ngi len di sant ma ngi len di gërëm ma ngi len di ñaanal liggéey bi yalla nangu ko te fi ngeen ci bëgg egg fep ngeen egg Sëñ Blaat ci bopam duma ne baye mo ñëk a école arabe ci Sénégal de ndax tarikhu duna ma kana waye école Blaat école ba mo mak Samba gey mi ta xamna ku ko mak école bu ko mak warna naa ay am tay itam man ci bi la nek 2000. 2002 asaatisa yi fi nekk yëpp ku ci jaarut ci école yu Diouf boobu bëriwul ñi ma ci xam bopp ci ittihaad yi fi nekk yëpp kon école bi ku yàgg tijji école la ba mana jangale mak mana dox ak mbokk yoy taxon na bi sax suñu blaat def déclaration wax fi ni suñ gaawaan fu mu dem nañ ko bayyi mu dem bëggu kenn té kon lolu woné na né ak for la tey suñu blad moomu ñu ko tudde mu jël ci mom ay jikko ci dëggu ak ci téla a la alxuraan ak yu bëri yo xamné ne wi bi jeexital nako ci mom kon néna ma ngi leen di sant di ñaan ci barkeb suñ saayu di ñaan ci barkeb alxuraan di ñaan ci barkeb bis bi yépp ngeen jëm ca kanam té li ngeen ci bëgg yépp mu defal leen sant di sant ñi fi teew ñëpp li ci des nag mooy kàddoy soññee yoo xam ne ñoo ngi koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoo fi indi seen ay doom ndax salaam ak sëñ Mor Diouf mi xam-xam lañ mën a may xele yi xam-xam waaye mënuñu leen a may barke xele soo ko yóbboo muy jàng yaa koy wutal barke te jàngum kese amul amul njariñ nit mën naa jàng ba am xamam sëñ wax na ci naax ju ne nit dana jàng ba géeju te kenn du ko laaj masala te li koy def mooy day ñàkk barke kon soo jëlee sa doom yóbbu ko ci daara ji yow yaa koy yaay góorlu ci di ko fayal ak di ko joxeel àllarba ak di neexal ki ko jàngal ngir mu am barke am na nit ku jàng ba yëy ay kayitam waaye doo ko mas a gis mu toog ci barab ñu jox ko micro muy wax ndax dafa ñàkk barke beneen bi ci des it mooy ñi nga xam ne dugaluguñ seeni doom ñu góorgóorlu ci dugal leen seeni doom ci école bi sëñ Modou moom ko exceptionnel la xam-xam baa ngi fi waaye yar bi moo ko ëpp te sëñ bi daa wax ne wa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal asa wa tahabi xam-xam bu bëri bu am tak yar day sonle rek damay wax ne toujours nag njàng mi ma ngi yokk waaye yar bi ma ngi gën a deltu ginnaaw mais moom ku yaru la koo xam ne macha allah daal waa koñ bi yëpp xam nañ ko te ku ko xam démb ba tey ba muy jàng ndaam ba tey xam nga ne ci noonu la mas a nekk jàngalekat yarekat la borom xam-xam la te it barab bii ñu nekk bu fekkee moom mu ko it daanaka ci sama ndigal lañ fi nekk su fekkoon xam naa ci moom yeneen yitte yeneen doxin yu bokkut ak yii ma xam ci moom kon du ma nangu mu nekk kon euh, maa ngi soññi waa koñ bi yëpp ci ñu jël seen xele indi ci école bi te bañ leen fee indi rek bàyyi leen fi ñu indi leen fi ba pare di too école bi ñun ñëpp ñoo ci war a góor góorlu mooy rawatina am murid sëñ bi da wax ne moom dëkk bii dëkkub xam-xam la bëgg mu nekk mu doon la wu dax ban maskana taallumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi wa mawdihal fikrat taallum moom ñoo ngi koy def mooy lii ñuy def nii waaye nag des na al fikratu wa tafahum loolu ñu gën cee góorgóorlu ci yar xale yi ak di leen xalaatal di bañ ñeneen di leen xalaatal waaye xale yi tele yi ñoo leen di xalaatal ak ñeneen ñoo xam ne waruñoo bokk ak ñoom ay xalaat da gis ne xale bi li muy jàng diine lay jàng waaye xale bi ni muy xalaatee du xalaat ci diine kon faawu ñuy xalaatal xale yi li mu wax it sëñ bi wax ne inni ujaahidu bil ulumi koo xam ne nag da ñëw wuy si ab xare war ngaa indaale jaasi wala aw yat ginnaaw sëñ Tuubaa lañ wuy si te moom ci jihaad la ne te jihaad jooju xam-xam moo koy def kon nag ñun ñëpp war nañoo jóg wut xam-xam ngir ñu mën a bokk ci jihaad jooju xam-xam bi nag sëñ bi waxut ne bil ilmi inni ujaahidu bil ilmi bil ulumi la wax doo kon ñun ñëpp war nañoo jóg jëm ci wut xam-xam boobu kon loolu moo doon kàddu yu soññe yi ñu yemale ko foofu di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoo ma ànd ci délégation bi tàmbalee ko ci sëñ Jiili ak sëñ Saalihu Silla ak sëñ Muuru Jonn me ak sëñ Masamba Gay ak sëñ Malick ak mbooleem jigéen ñi ngeen xam ne sëñ bi sant na bu baax a baax a baax kàddu yi nga xam ne bu fi teewoon moom lay wax nag man mënuma koo wax ndax moom boroom dënn bu yaatu la te boroom kàddu yi leer la tey boroom xam-xam la tey kilifa la waaye man ñii fi toog wuutu ko fi suñ ñaari yaay yi seen ñaari seen ñaari ñoo bokk benn baay rakkam laa taalibeem laa léppam laa kon ñaanal na leen sant na leen gërëm na leen lii nag addiye la joo xam ne da ko cee barkeeloo ndax su fekkonte ne bis bu mel nii moom lii moom la waroon jàngale ñëpp la war faaxil mu baasar ak xayru mu baasar nag ñoo am koo xam ne jàngale woo itam war ngaa mën a fekk ñay jàngale nga jël seen alal di ko ci def bu fi romboon képp lii war na ko ci waxuma laa bi ngeen jëlee bis bi dara jaale ko kon lii da ko cee barkeeloo rek xam ne yéen ak moom yéen a bokk liggéey bi muy sant bu baax di gërëm xam naa kon kàddu yi ma yamale ko foofu asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen tatagal ci bés bii ñoo ngi wax nag ci turu sëñ Moustapha Faye suñu mag ñoo ko fi nekkal fu ñu nekk rek mel na ni ma nga fa moo ñu yónni ci bés bii bésu diine bii ndax doomu aadama bu nekkut ci diine dina nekk ci leneen te nekk ci diine ji moo gën nekk ci leneen kon moo ñu yónni ci sañ salaam ak sant ak ngërëm ci lii nga xamante ni defal na ko ndax uh, ay nit a ngi fi dëkk bi rëy na te ñu fi xam jàngalekat yi ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax bu ko defee sëñ salaam li ma ciy wax xam naa ko ndax uh, alxuraan bëgg na ko ndax lii may wax nii moo ma koy defal chaque ñaari weer damay wàcceel samay waajur ay kaamir te moom moo ma koy defal te laajuma ci dara loolu dinaa ko wax ndax ku la defal lu baax danga koy wax loolu dama ko ciy sant depuis ba ma ko xamee ba tey lu bëgg a mat ñetti at chaque weer mu wàcceel ma ay kaamil yoo xamante ni fayuma ko ci dara di ko wàcceel samay waajur ak samay maam loolu ak sant la yàlla mi tax ngay def yàlla na la fay loolu maa ngi la koy seedeel fii ci mbooloo mi xam ne siñ salaam ku baax la wallaay alxasim ku baax a ngi nii sat nañ ko gërëm nañ ko nun waa kër Moustapha Faye jigen ñaa ni ñom la andal soxna khadiyum limay wax man nako sédé ndax moma gëna xam seigne salam mi moo ñok mom ñoo nek soxna khadi neena sat na la bu baax moo ngi mu andal ndax soxna khadi ku mu sant rek xam nañ ne baaxna kon soxna khadi sat na la moom mbooleem ñam fa nekkal ñep jeeg de ñep sat nañ la bu baax ki ma togal ni doomi seigne moustapha Faya moom it am na mbégte bu baax ci liñ defal baayam ndax kees defal sa baay lu baax di ci am mbégte kon am na mbégte bu baax sëñ salaam sëñ Moustapha Faye sant na bu baax gërëm na bu baax yàlla mi fay yal na la fay yàlla mi kàttanal yal na la kàttanal yàlla mi dooleel yal na la dooleel suñ borom bi tegal la loxo ci xele yi ba li nga bëgg suñ borom bi defal la ko comme li sang bee wax sàng mooy waajuru xele yi ñu gën a góorgóorlu ci xele yi ndax jamono ji ku jàngut rekk perte nga ñun ñu jàng kon ñëpp perte nañ kon ku am doom góorlu ci moom mu jàng xam diineem xam lislaam bu jàngul dina nekk ci leneen te leneen li muy nekk fii dina la arrangé mais su benee su fa ñu jëm du la fa arrangé boobaa te foofa pardon amu fa baal ma delluwaat amu fa kon nañu leen ci jàngloo xele yi ñun ñi doon seen ay waajur ñu góorgóorlu ci bu baax sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp dañoo mënta wax nag ci mbooloo mais gërëm nañ ñëpp baax baax sëñ salaam sëñ Moustapha Faye moo barkee lool lii sëñ salaam xeem na ko bu baax yéeneem romb na fii ndax xam naa sëñ Moustapha maa ngi moom ñoo nekk leen lu lislaam ak lu dul diine ñoru ko ku nekk ak moom te naroo wéy ci lislaam ak diine ci ab xeex ngeen di dëkk yaag ak moo yaag moom wallaahi alxasim ci alxuraan lay xëy ci lay wàcc foo ko fekk ma ngaag ay xasidaam ma ngaag ay alxuraanam di jàng lenn lu diine ñuru ko dara dara dara wallaahi alxasim nit loo koy seedeel seedeel ko jikkoom waaye man mii nekk ak moom xam naa Tafa Faye bu baax barkib Seydina Muhammad dara dara lu diine ñuru ko nun ñi yar yar nañu ci yarin wu xamanteni suñu wajur waajur ñu ci ene yar te dañoo tek ci diine moy dee len aw fi dee len def li dee len bëgg lu baax tay bañ lu bon loolu mu ñu jëmal ñu koy ñaanal suñu borom bi gën ko kattanal gën ko dolel ba njabotam bi suñu borom bi tek ci loxo señ salam sant nañ bu baax gërem nañ bu baax sant soxnaam yi bu baaxa baaxa baax yene ngi ak seen portail Baol media nek fi ci mbacke Bawal